xaj na ba léegi loolu sotteegul jot na kon ci université publique yi nekk Sénégal yëpp ñu ubbi fa ay département d'arabe comme ni ko université Cheikh Anta Diop amee ngir euh, maanaam woyafal yenn bi nga xam ne teg nañ ko université Cheikh Anta Diop bu Dakar ndax lu ëpp ñetti junney bachelier daanaka chaque année rek dañ leen fay jiima dugal te mu nekk loo xam ne ni dem na ba mënatut a nekk. bu bëri ci ñi nga xam ne ni ñoo diplômé wala ñooy jàng arab euh, faatu nañ ci ci géej gi. mu mel ne loolu bu ñu leen ko ubbiloon bu ñu amee ci lu ñu jàpp daal loolu ñuy tuddee mbëkk mi phénomène boobu dina wàññeeku bu baax a baax kon daal ci cadre boobu ngir phénomène mbëkk moomu gën a wàññeeku ñoo ngi sàkku lépp loo xam ne ni institution financière la wala euh, insertion rek ñu ubbil ko arabophone yi ngir aywa utal leen benn programme spécial boo xamee ne ni ñoom ñoom rek ñoo koy tax a jóg bu ko defee loolu dina yombal seen insertion dina yombal encore ñu mën a am seen wàll ci financement yi nga xam ne ñu ngi ko yëkkati di ko jëmale ci ndaw mi ak jigéen